place de l'Obélisque yéen a kaay gi di réew mi ko di cee nee na manifestation boobee nag li nga xam ne moo ko wundu ak lan moo taxoon waa coalition Yewwi Askan Wi nga xam ne wane na ay ñaawteef ci xaalis waaye tamit njëg yi nga xam ne dafa yokk ba mara détaillé dund gi daal di gëllëgoose ak àq ak yelleefu askan wi nga xam ne dañu ko daal di salfaañe ñu bare bari ñu jàpp leen dugal leen ci kasu bi yéen a kaay gi de la Tribune xëy sam Ousmane Sonko est-ce que nag ñoom danañu daal di amale seen manifestation yéen kaay gi di réew mi ko di ñu xëy fekk fa Assane Samb nee na en tout cas li am ba de lu jëm ci sañ-sañ bi nga xam ne opposition bi am nañu ko ngir nag doxal seen activité bu ñu waxante dëgg ci Sénégal dañu koo daal di salfaañe ndax nag droit constitutionnel la maanaam manifestation kenn ku nekk am nga si sañ-sañ te loolu nag constitution bi maanaam moo ko may askan wi te ñi nga xam ne ñooy pouvoir bi maanaam ñoo ngi amal seen i activité te i activité leen a war a bàyyi ñu Yewwi Askan Wi rek la ñu tere seenub rassemblement ndax ñi nga xam ne ñooy waa muy kuréel gi ëmb taskatu xabaar yeeka waa Fra France Dégage ñoom gi Mari Sagna ñoom tim nag toogaanu ñaxtu bi nga xam ne bëggoon nañu ko amal samedi bi ñu dëgmal ca buntu hôpital principal dañu leen ko daal tere yéen a kaay di bés bi nee na Ousmane Sonko démb wax na ci lu jëm ci étudiant si yi nga xam ne maanaam ñooy gréwa Ousmane Sonko nee na ñooñee ay politiciens dakkal mbir mi il faut ñu daal koy organiser bañ siy dugal wàllum politique moom Ousmane Sonko nee na nag bu leen na nguur gi nekk seen ginnaaw ak ay way politique ngeen taal si coro wala nag ngeen def année balance ba kan moo koy yëkk Ousmane Sonko nag nee na am na tamit ñenn ñoo ne maanaam dàqee nañ leen ci mairie bi ñoom tim bokkoon nañ ca rassemblement boobee waaye nag moom Ousmane Sonko nee na moo ñëw ci mairie bi xool ñi nga xam ne amuluñu njariñ mairie boobaa tamit ay matukaay yu mat sëkk lañ ci jël te mairie bee koy doxal yéen kaay gi de la quotidien wax ci violence bi nga xam ne moom la ñuy teg élèves yi journal bi nee na bi ñu ko càmbare lu jëm ci wàllum violence physique maanaam ñi nga xam ne dañu leen di dóor ba gaañ leen téeméer boo jëlee juróom benn fukk ya ak juróom benn maanaam teg nañ leen fitna yéen kaay gi nee na atum 2017 jàpp 2021 bi ñu ko xaymaa tamit lu toll si juróom fukk ak juróomi yi moo bi de ci mbiri Aly lu jëm ci information judiciaire bi jamono ji mbir mi pare na léegi te ñu daal di jébbal dossier bi procureur a avocat yi Pape ñoom nag sàkk woon xam ne mooy ab bàyyam néggandiku yéen a gi nee amaana li si la yéen a gi di source xëy di ñu xibaar naan ñu état bu Sénégal bëggoon nañoo jaay lu toll ci trois hectares maanaam ci hôpital Dantec waaye nag njaay moomee mujjee nañu koo teg ci suufa yéen a gi da la xëy di ñu xibaar naan ñu mbiri Adji ñett lan moo leen ci gën a yitte ëpp ci askanu Sénégal mille yi nga xam ne dugaloon ko ci coronavirus bi te rapport Cour des bi wane si ay njombe loolee moo leen gën a yitte la yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien xëy wax ci MEDES mouvement des centres prix du Sénégal ñoom nag amal nañ cérémonie annuelle bi nga xam ne baaxoon nañu ko def an mu vingt-trois ans d'existence journal bi dikk na si jéego yeeg engagement yi nga xam ne waa MEDES ne anam bu mucc ayib la seen programme 2022 ba tey ci biir journal bi xëy na wax ci programme 2023 ak défi yi nga xam ne président Mbagnick Diop mi jiite MEDES ak ñi mu àndal fas yéene nañu koo def yéene kay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa Ismaïla Madior Fall moom jamono ji ma ngi xàllal Macky Sall yoon ngir nag moom ñetteelu mandat ci bopp réewum Sénégal moom Ismaïla Madior Fall ministre bi ñu dénk wàllum yoon nee na mbir mi jamono ji di mbirum yoon élection yi ñun ñi nga xam ne ñooy waa APR benn bokk yaakaar nañu jaay sunuy carte amal sunuy mobilisation def sunuy carte maanaam ñooy imposé candidature Macky Sall yéen kaay gii Vox Populi ndaw ñi nga xam ñoo dëkk Thiès te bokk ci parti réew mi ñoom nag Idrissa Seck la ñu tànn ngir nag mu nekk seen candidat ci élection présidentielle nekk candidat benn bokk yaakaar maître Moussa Diop ci biir journal bi moom nag nee na su nekkoon Macky du jéem ñetteelu mandat avocats yi Ousmane Sonko yi ñoom nag bind nañu ab lettre boole ko akub clé USB daal di koy jébbal doyen des juges ñoom nag la ñu sa mooy xamal ko no Adji Sarr mi maanaam la ba pare Adji Sarr nit la koo xam ne tekkiwul dara ba ay waxam ñu mën see dugal nit yéen a kaay gi di bés musiba am na carburant bi yokku na bi yokku na maanaam bi ak courant bi yéen a kaay gi nee sunu lamb xëy ci combat Zarko ak Ada Fass Zarko ma koy avertir